Blaise Gabriel Bass doful dara jàpp ko kon lu nit di wax na nga xol sa diggante ak Yalla ne Blaise dafa dof Yalla xamna ñun ñi dëkk ak ñom fi xamna li Blaise di dund. du ñu ñàkk nag di wax mais ku ne Blaise dafa dof ku ne Blaise dafa dof yal na la yàlla àtteeg moom. Blaise jour bi muy xëy dem liggéey man ak moom ñoo ànd ba ci arrêt bi mu dem liggéey ma dem liggéey man ak moom ñoo ànd maa ko gunge ba ci arrêt bi mu ne ma fils ba ngoon ma ne ko ok grand ba ngoon mu dem liggéey ma dem liggéey mais man mii di rakam ñu bokk benn papa man ak moom su ma wóoroon ne xëy na tey su ma ko bàyyi woon mu dem lii dina am kon tey du génn. bi muy xey ci fajar gi ñëw na feug ana potu saabu bi jox ko saabu mu sangu bi muy genn ma ng koy xol ba sama buntu nek mu doga dem police ma ne macha allah xol ko teni nim ko jappé bi dox mu melni bi dem dem. xey dem liggey sama auto taal nako parce que man chauffeur la dem sama patron dem kañ dem Sandaga ñu dem Sandaga ma and ak sama patron ak ñaari magam yu jigen ñu daal dem ba Sandaga ma gis embouteillage bi am ñu baré tali bi auto sa yi taxaw auto police taxaw. mais xaw ma woon ba xam sama mag la nit ñëpp taxaw moo ñëw romb mais xaw ma woon ba xam kii sama mag la ma daal di dévier bon ba ma egge ba dem ba biir boori ETS sama benn xarit bu ñu naan Saliou seen woo ma informé ma ko ma ne ko Saliou loolu mënut a nekk bees maa ko nga tey suba bees loolu mënut a nekk c'est impossible lii laa ci man yëguma woote nañ sam papa sam papa ànd ak sama raq bi ma kii doon wax noonu sama mag ju góor ji moo tax ma xam moo ma woo téléphone mu ne ma foo ne ma ne ko may kër ga bu mu ñëwee ne ma xam nga Sophie Blaise gaañu bi dafa métti ma ne ko ban gaañu moom bi mu jooyee laa ne ko kon Blaise dee na mu ne ma bu leen jooy ndax amaguñu lu leen reer di daal lañ ci am Blaise amuloo kenn benn xarma yàlla nekkoon nit ku baax nit ku bëgg nit. Blaise musul am lii ku def xoma pendant d'année d'armée nga dekk 44 moo dem def demal boppam concours ñaari fan la sol police lii daal ko mais dogalu suñu borom daal yàllaa ñëw yàllaa ñëw. waaw amoon na jabar amoon na jabar ak ñetti doom ñaari góor ak benn bu jigéen. boo wax ay waxam sax doo fi jóge tey nit ku ne sa tëraay bàmmeel ngay wax Blaise bi muy xale ba ni mu nekkee mag kenn mësu koo àtte xeex kenn mësul na Blaise jor na arme def na lii xool bu baax am yërmande laa biir am ak jàmm ñëpp mbedd bi sax ñooñu gën a xam Blaise mësul sigg xool nit jàmm ak salaam ak seeti nit nekk tiis bu métti xam nga métti na képp nag koy doomu aadama métti na képp ka nga xamante ni nii tamit homme de tenue nga métti képp ka nga xamante ni nii xam nga doomu aadama nga buy dox si ko suuf mais damay ñaan ngir yàlla ak yonent bi seen mbokk journaliste yi surtout journaliste yi parce que lu ne dégg naa ko ay dafa rendi boppam ay dafa génne butitam bu ñu wax nañ xool suñu diggante ak yàlla parce que tamit mënoo yor presse bëgg sa presse dox wala nga bëgg a jaay tax nga wax naka su dul noonu nit saa yoo wax xoolal sa diggante yàlla parce que bis dinañu da nga laloo sa ndoxal ndeyjoor te lépp loo fu defoo su lu baax doo fekk ngir yàlla bu ñuy waxati nañ xool li wax xam nga lii lu waroon am na am na man nag maa ngi koy ñaanal en tant man bokku ak moom papa kese naa ne man ndey ak baay lañ bokk ñëpp kii mooy sunu mag di soo bi ci am moom moo koy jël mais sant nañ yàlla nag sant nañ yàlla parce que xëy na nii la ko yàlla bëggee woon mais lii nekk woon lu ñu gën tey mu defoon ko fii ci biir néegam moo nekkoon lu ñu gën mais de ngi delluwaat suñu xel ci yàlla gën a santaat yàlla te xam lu yàlla def rek mooy li gën ko